Conseil sénégalais des chargeurs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 moom lañ ciy rax Ousmane Sonko ba mu demee sa diwaanu Ziguinchor nee na am na ñoo xam ne du ñu ay moromam kon du wax ak ñoom bugaan jàpp ne kàddu yooyu moo ko moom mooma tax mu daal di tontu Ousmane Sonko daal ne xel mi dafa gàtt sorewul ak yor xelum taaw loolee moo tax coow li jamono ji nee na cobbay yéen kaay gi nee na opposition bi en tout cas xaajaloo nañ jamono ji ñoo ngi defante ki nga xam ne nag mooy Macky Sall moom ma ngi wagg waggal ay nit ngir gën a am doole ci réew mi yéen mi quotidien ñu fekk fa Thierno Bocoum moom nag daal nay ñaawlu bu baax baax taxawaayu assemblée nationale ndax xam ngeen ne ni ki démb assemblée nationale woote woon nañ ab réunion d'information ci lu jëm ci wàllu mbënd mi ak ni ñu ko yore ci réewum Sénégal 750 milliards yi askanu Sénégal bëggoon assemblée nationale ubbi ci ab enquête Thierno Bocoum nee na assemblée ab communiqué la génne mel ne luy neexal Macky Sall yéen a kaay gii de la sa mu ñu xamal laan ñu Moustapha Niass leetar bi nga xamante ni waa sa bindoon nañ ko ko di saako ab enquête parlementaire ak ñu déglu ministre yi nga xam ne laale nañ ci mbir mi leetar boobee Moustapha Niass daf koo xotti traite sànni ko si poubelle bi yéen kaay gi di source a ñu xëy fekk fa professeur Khadim Rassoul Thiam deb économiste nee na li nga xam ne moo ko métt ci mbënd mi am ci réewum Sénégal xaalis bi nga xam ne moom lañ ci dugal ñuy wax ne toll na ci 750 milliards te Macky Sall ci boppam jamono ji munu cee indi ay leerala yéen kaay gi de la sa mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllum plan Orsec ak milliards yi nga xam ne dugal nañ ko si man Faye la ñu ko dénk ma nga sa séddale ba maanaam daat na koy commencé séddale yéen kaay gi de la témoin xëy ci Ousmane France ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci càmbar lu soxal wàllum politique daan nañu si wax seen xalaat Bakary Domingo Mané nee na Ousmane Sonko ako doxalinam maanaam daal di xaajaloo ak ñenn ci opposition bi loolee mën na koo andil ay jafe-jafe maanaam dafa exposé boppam su dee nekk professeur Moussa Diaw nee na Ousmane Sonko taxawaay bi nga xamante ni jamono jii moom la ama ba ñëpp di ko ŋawta ŋawte di ko tudd am nañu bari ñoo xam ne ci opposition bi lool neexu leen maanaam dañ cee jalo yéen gi di bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum BFM bi am na benn élève boo xam ne ca Bambey da doon tricher bi ñu ko jàppee loxo si poos fa la bàyyi épreuve yi daal di daw génn centre ba yéen gii di vox populi xëy ci lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi mboole mesure yi nga xam ne tegoon nañ ko transporteurs yi daat nañu koy teggee maanaam lu soxal wàllum limité place yeeg loolee lépp amatu ci takk masque rek la leen wax yéen kaay gii di wal fajëre ñu fekk fa maître Moussa Diop mi nga xam ne ni ki démb doon na def passation de service ci Dakar dem dikk doon joxe lenge yi daan na yëkkati ay kàddu nee na ñi nga xam ne ñoo koy ŋàññi amul seen jot ndax na leneen lu mu def yéen kaay gii ci Khalifa Sall ak ëllëgëm ci lu jëm ci wàllum politique soo moytuwulee dina ci am ay tolof-tolof ak i gétangaas gi jafe-jafe ndax Khalifa Sall ci lu jëm ci wàllum yoon jamono ji ay mbiram dara leeru ci ak lu soxal at yi nga xam ne moom Khalifa Sall ma ngi koy am ndax ma ngay magal yéen kaay gi de la sax xëy di ñu xamal naan ñu Souleymane Teliko mi jiite kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal tey daat nañu koy convoqué ci kanamu inspection générale de l'administration de la justice yéen kaay gi nee na lan la ñu koy toppee bokk na ci li mu yëkkati woon ne ay kàddu ci procès Khalifa Sall ndax moom Souleymane Teliko dafa waxoon ne Khalifa Sall ni ñu ko àttee bëri na ay violation yoo xamante ni def nañu ko si maanaam àqam ak yelleefam dañu ko daal di salfaañee demoon sax bay joxe exemple ci ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ak taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko si loolee bokk na ci li tax ñu daal di koy woole ñeneen ñi tamit njort nañ ne bokk na si kàddu yi mu yëkkati woon tuumaal ministre de la justice daal moo génne lettre d'émission bi nga xam ne Ousmane Kane bindoon na ko da ko tuumaloon moo ko génne ci presse bi journal bi na kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal gi nga xam ne convoqué nañ ko seen président bi ñoo ngi woote nag ab mobilisation générale ndax ñoom jàpp nañ dañu koy xoqutal waaye nag ñoom nee nañu daal danañu defante yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal ñu tey la bisub dëgg bi ci Lamine Diack ca Paris la France moom mi nga xam ne ay jamono moo fi jiite woon kuréel gii di IAAF ñu koy tuumaal lu jëm ci wàllum guerre jambour tribunal correctionnel de Paris tey xamal nañu liggéey yi nga xam ne Touba ci kanam ñoo ngi koy def ca Touba niki démb am na ñaari nit ñoo xamante ne ñàkk nañ si seen bakkan ci accident yéen i kaay gi de Dakar Times ñëw ci woppi coronavirus ak jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nar a andil Sénégal ci lu jëm ci wàllum kooma ndax am na ñaari document yoo xamante ni waa Dakar Times xëy nañ génne ko ci benn document bi waa Banque mondiale ñoo ko génne beneen bi programme des Nations Unies pour le développement ñoom nag nee nañu coronavirus dina andil Sénégal ay jafe-jafe jafe yu métte métte yéen i kaay gi de réew mi ci ànd sama ñoom nag ni ki démb janoo nañu ak taskatu xabaar yi mer nañ ba maara day taali nee nañu danañu amal grève générale ni ki suba ndax hôpital Abass Ndao ni ñu ko yoree dara baaxu sa marché yaa ma neex par parloo ga mel ni tulleeg màlle surfacturation ga fu ko waaye nat daan na koy passé neexul ba neexul waaye opital Abass Ndao jamono ji pëccëxoo na yéen i kaay gi dee sat xëy di ñu xamalaan ñu Paris Saint-Germain bu bëggee Kalidou Koulibaly mbir mi du jafe si mooma ndax Manchester City mi nga xamante ni moo ko bloqué woon waxutut waxi Kalidou Koulibaly yéen i kaay gi du sunu làmb xëy bi nga xam ne